clairement et pour le dire arrivent aisément loolu mbokk yi le consultant Escalité moom mooy wax ak yéen moom moo leen di waxtaanal mbokk yi ci wàllu technique ba tey wax nañ leen ko demoon nañ léegi Mbour affaire yi kale ci côté autoroute bi. Mhm. ñu del si let's go Cheikhou ñu dem ñëwaat. waaw ñu waaw donc benn séance ngay def ak récupération bu bëri. si lañ nekk acteur non amul benn amul benn changement bu jam parce que même mbër bi ngay préparé rek. même staff bi nga rek aussi nga moom nga yor. seulement li ci changé tuuti rek mooy euh, def na ci benn voyage. boo xam ni am na lu ñu dolliwaat foofu. bu ñu ñëwee complet de xam nga complété waat ko ak euh, contact yi fii. mais amul amul amul différence bu mag a mag ko. entraînement mbër moom ñetti entraînement dong la gars yi ñoo si nekk di kii mais musculation la daw contact amul leneen. waaw ku fi gars yi nag ñoo si nekk des fois di ko xam nga di di ñoo di di ko xàcc. mais entraînement mbër loolu rek la. boxe la daw def musculation ak contact jeex non xam naa ko bu baax te li tax ma ne ko xam naa parce que am na fu ñu jaar jëflante nañu euh, bi ci des aussi dama ko ni xamante nañu te li tax ma ne ko xamante nañu bu baax loolu dama koy denc ba après combat bi laa ko wax. man man kay sama adversaire du ma la du ma la calculer sax du ma xam ndax ragal nga ma ou ragaloo ma man dama gëm ni rek góor comme man lay dajeel kuy waaj comme man am ay mbokk comme man. voilà pour man góor ragal lu moom man aussi ragal moom benn góor loolu ba jël sa avance man su may jàkkaarloog benn adversaire man li may indi rek laay gëm danga naa tey ba jël sa avance euh, ngay dem bay jàkkaarloog moom li war a gis rek mooy que kii gëree la parce que xam nga osé na jël sa avance war a jaflanteeg yow da ngay jàpp ne kii nga jàkkaarloog gaynde la ba koy gañ bëri wax Eh, yàgg naa wax ne ndam moom noo ko amee baax na boo ñëwee dóor mu daanu gën a yomb nga gis ko dóoral mu daanu am yéeg sa gisee ni jàpp bëree daan moo gën a yomb nga gis ouverture jàppal daan en tout cas moom naar bi yëkkee sa loxo ne yaa am ndam noo ko amee baax naturellement man ni laa man eh, aw ma aw ma benn pression ci sama vie sama vie normale waxuma sax combat mais sama vie normale aw ma si benn pression du ma tiit si dara amul lu may lu may bett ba ma tiit man lu ñëwee dama koy jàppee naturellement. li may bëreeg Tyson 2002 laa a nekk xale amagu moom vingt cinq ans mais trois jours avant combat bi Xaadim Samb jël si na ma euh, li may dafa am seede mais bi mu ñëwee jël si ma fekk may petit camp ma mais yow coow li ma bàyyi Dakar ak bi ma ñëwee fekk la fii ngay petit camp comme si nga bëree woon dimanche ma ne ko mais man nii laa mel naturellement tey ba ma gisoon béyi combat da nga naan du kii may bëri même sama gars yi sax souvent ñoo may jékki-jékki fàttali ma si affaire combat mais man souvent bu may toog ak ñoom di waxtaan di kii a damay fàtte sax dama nekk si combat donc kon peut-être nit ñi ñooy seetlu la na vraiment ñu la euh, lamb ji mën na ñëwee du nekk moo tax booy préparé combat ngay préparé lépp mais ku xamoon ne nii lay jeexe doo préparé da ngay def loolu mën nañu jàppante bëri bëri bu neex mën nañu taxaw samp jàpp xeex xeex bu neex ba avancé di hmm? lépp mën na ci nekk. bu ci gën a ci ñaar ñooñu bu la ci gën mën naa am ndam rek. li ma ci gënal mooy ma am ndam. <laughs> mais man dama lay benn affaire daw ma xeex ragalu ma ko moytu ma ko. te ñaata seconde nga koy may bu ñëwee. daw ma man moom moom moo bii passé moo maye ay seconde ak ay minute ma ne ko nag dinaa la xaar li nga maye yow. Hmm. boo ko defulee man ma def une minute la ni ma woon boo dawulee soo dawee deux minutes ma ne ko daw moom sakkanal sa batterie man du ma daw toog naa une minute ñëwul ñëw naa. bi yoon bii na mayewaat ay minute li mu maye dinaa ko ko xaar su ñëwulee man ma ñëw. xalaat naa gars yi dinañ gis combat bu neex incha allah rabbi. waaw loolu moom souhaité naa ko bëgg naa comme comme le premier la euh, mooy première jour si si deux mille vingt deux bi. Euh, bëgg naa mu dem combat bu neex ba nga xamante ni année deux mille vingt deux bi combat yi sax day neex. beneen bi mooy aussi affaire de comme comme euh, comme violence bi am temps yi passé arène bi ba xel yu bari yi xaw a kii peut-être lu waroon am la mais aussi jàngat la pour CNG mën a gën a liggéeyaat. defe naa combat yi passé nii organisation bi ak yi njëkkoon am du benn kon ñu ngi leen di félicité bu baax aussi supporters yi nañu nañu nañu moytu violence parce que bu amee ci làmb rek day am image bu ñuy jox làmb kon supporter nañu ñëw ak daal supporter seen mbër kenn gu nekk am nga droit supporter ku la neex hmm. tàccu nga bañ a sànni xeer nga bañ a sànni ay ndox bañ a sànni dara nga supporter sa mbër bu ko yàlla mayee ndam bu ñëw bu ko yàlla xàññee aussi noonu di lancer un appel que mobilisation bi aussi yi ni ñu ko waxee euh, na si ñëpp jàpp parce soxla nañ mobilisation bu mag a mag a mag parce jëm xam nañ jaajëf mbokk yi gis ngeen loolu muy lu am solo Bombardier wax na lu am solo ñu ngi jégalu gars yi ci image bi ñu ngi jégalu bu baax a waax a waax ci mm-hmm. image bi ci qualité image bi ñu ngi ciy jégalu parce que mooy loolu quoi xama rek te suivi mm-hmm. son bi son bi ah son waaw son beeg image bi yëpp ñu ngi ciy jégalu man xam naa li may wax ñu ngi ciy tuub Père Tafa. Mhm. Bombardier combat am bu njëkk ci digganteem ak euh, Balla Gaye dañoo am temps bu ñu joxante woon yaa ngi dégg Bombardier mi ngi koy wax. Mhm. mu ne ma xaar ko ñëwul ma ñëw. te bii it noonu laay defaat joxaat naa ko heure joxaat joxaat na ma temps su ñëwul damay ñëw. <laughs> gaynde fàttali la baaxoo te Bombardier loolu bokk na ci maninam dina ñëw léetoo la ñaari minutes même pas ne la wal boo ñëwoon fi fi jax looy commencé avancé sa kaw donc nag defoon na ko ci biir passé et bi mu gëddee Balla Gaye si nga Balla Gaye def na retiré ñaari yoon daal di tontu. Hmm. daal di réagir après ñu jëflante. Hmm. ndax tamit mbir bi nga xamante ne dafa offensif comme Bombardier bu la sëkkatee topp la soit da ngay taxaw riposte soit nga jéggi saako yi. Hmm. soit nga wëndeelu. en tout cas foo mënti fe foo mënti foo foo mënti jëmit dara fay fekk mais Modou en plus gars yi dañ naan poids lourd da nga koy doxloo mais attention loolu ci aspect physique laay wax poids lourd bi nga xamante ne dafa mel ni bombardier nga bugg ko dox il il va falloir nga emmagasiner condition physique bu extraordinaire hmm. parce que soo jegee ñetti tànk moom benn lay jéggi waaw xoolal nga balaa rapproché placage. Mm. Mm. soo jéggee ñetti tànk benn lay jéggi. Mm. waa ki nga bokkal euh, làmb nga jéggi ñetti tànk di nga dépensé di nga dépensé plus de d'effort physique. te kiy jéggi benn tànk. te kiy kiy jéggi dox di ñëw sa kaw encore encore Moodu kooku daf la tiim. waaw daf la moom. waaw parce que mi ngi lay diriger. waaw daf la cadré dafa la cadré di la diriger. mu ngi jàkkaarloog saako yi mu ngi jàkkaarloog lépp lu obstacle. Mm. yow rek yaa ngi dellu ginnaaw sa ginnaaw xamul fa ne. Mm. te amoo bëtu ginnaaw. Mm. donc dinaa la loo dinaa la doxloo mbër muñ ko travail ba nga mën ko it boo wëree 3 tours wër 4 tours 5 tours da nga taxaw waa ji mu bëggoon na ko am parce que yaay dépensé plus de d' énergie. boo jegee benn 2 3 4 mu toppale na la benn. nga déplacé 1 2 3 4 mu benn donc yaay plus d' effort donc dafa laaj nag les li ñaan réaction. réaction. ah bien sûr parce que waaye bu lay topp ngay reculer rek. Hmm. nga jéggi saako yi dem avertissement te avertissement yooyu ñu wax noonu dafay démoraliser mbër. waaw non seulement démoraliser mbër dafay hmm. démoraliser supporter. seen supporter kay. parce que boo xas xasee jël trois rek seen supporter am nañ problème. mais exactement bu njëkk bi sax boo ko xasee jël. gars yi dañ ko xaw a toléré mais sa yenn supporters yi nga xam ne dañ la xamal guerrier hmm. nga jéggi benn yoon saako commencé lâcher. yow tamit sa moral du baax. waaw la tax a arrière xam. waaye ji ki nga xam ne toppkat la lay topp na attaquant qui avance. Bombardier il ne recule jamais il avance tout le temps. waaw. loolu nag am na stratégie boo xamante ne moom la Balla Gaye war a bëri moom. ak quoi qu'il en waaw ak naa bëre mën naa xeex am na yëpp mais Bombardier ak koo mën ni muy def. Hmm. te wax ko léegi te ni mu ko waxee noonu la koy defee. ni mu ko waxee noonu la koy defee mbokk yi ni ñu demee ci Bombardier noonu la ñu demee seeti ki nga xamante ne nii mooy Balla Gaye numéro de nanu ànd ak yéen mbokk yi ñu dem seetaani ko ci la 2 vie après ñu ñëwaat continuer waxtaan wi ayca la régie. di nuyu Sénégal yëpp. Euh, vraiment et am contenté ci ñaanal ñëpp jàmm. Euh, ñu ngi jëm ci bis boo xamante ne Sénégal yëpp moom lañuy xaar. ñaan yàlla yàlla suñu borom may ñu ci ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. donc euh, di nuyu supporter bu Balla Gaye numéro 2 yëpp nag. préparation bu nekk rek ak li daal sa xel. bële par rapport ak euh, ni ñu meloon ak bii yokk nañu kattan bi bu baax yokk nañu puissance bi ak résistance bi ak euh, physique bi ak box bi macha allah dañ ciy gën a liggéey travail ji